di leen ñaanal kenn dalu jàmm ngeen di woy di ci ànd ak sunu ay programme ñu woyal matinal bi ak li nga xamante ni moo di la revue web ànd ci Kajoor Cissé Kajoor maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Aïcha di euh, sant yàlla mi ñu may ñu fekkee nu nuyu mbokk yi ñuy teewlu di nuyuwaale Pape Malick itam. Pape maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi nuyu bépp téléspectateur bu ñu seetaan ce matin di nuyu aussi euh, di nuyu aussi Kajoor Cissé. dal leen ak jàmm la revue web dañ koy tàmmale Kadior Cissé ak li nga xamante ni moo di lutte contre la délinquance lu tollu ci 445 euh, individus euh, la police daal di interpellé Seneweb moom moo ñuy euh, xamle lu ni mel ginnaaw nag ba police fas yéene rek daal di gën a ñoŋal kaarangay askan wi ñoom dañu yokkoon seeni opération de sécurisation fépp ci réew mi ca nag Euh, la ñu daal di euh, amal ab opération bu mucc ay boo xam ne ñu ko amaloon ci guddig euh, merc mardi jàpp mercredi la ko dalee vingt et jàpp cinq heures du matin ci supervision wu li nga xam ne moom mooy direction de la sécurité publique ñoom ñu wàcc nag ci ay gox yu bëri ca noonu nag la ñu daal di tegee loxo lu toll ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróomi nit. Euh, ci li nga xam ne moom mooy ay ñaawteef wala bokk ay euh, yenn mbir yoo xam ne yoon daf ko daal di euh, tere bokk na ci ñoom lu toll ci ñaar téeméer ak ñeent fukk juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti nit yoo xam ne ci wàllum ñàkkum carte d'identité lañ leen jàppe mu am euh, lu toll ci juróom euh, juróom ñaar fukki nit ak euh, ñett yoo xam ne dañu leen jàpp fekk ñu màndi nekk ci mbedd mi di dox Euh, lu toll ci fukk ak juróom ñoom ñu jàpp leen ci mbiru enquête boo xam ne dafa laale euh, seeni euh, diggante ak yoon ñaari nit ci wàllu session kenn nga xam ne ñu ngi ko jàpp aussi ci li nga xam ne mooy sàkku mu doon jéem a sàkku ab nit Euh, loolu yëpp euh, bokk na itam ci ñenn ñoo xam ne jàpp nañ leen ñuy jaay ay drogue wala ñu koy euh, jëfandikoo wala ñuy jéem a njuuj njaaj di muy escroc wala di jaay ay produits yoo xam ne dafay lor doomu aadama loolu yëpp ñu dajale ko moo waral ñu toll ci quatre cent et quelques maanaam plus exactement quatre euh, cent euh, personnes yoo xam ne quatre cent quarante cinq bokk personnes yoo xam ne ñu leen jàpp. àdduwaat ci li nga xamante ni moo di projet de loi pour la protection des lanceurs d'alerte. waaw loolu nag euh, ca njëlbeeni waxam boo fàttalu ko la fësaloon loolu maanaam keroog ba muy def sax euh, euh, li nga xam ne moom mooy discours à la nation veille fête indépendance bi junjoon na ko mu taxaw ci lanceur d'alerte yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy daal di gis loo xam ne jaarul yoon ci ay bërëbu liggéeykaay ñu daal di koy fësal ngir ñu am ci saafara. loolu nag bokkul ak di euh, euh, daanaka di diffamer nit di waxal nit ki lu dul dëgg wala ngir bëgg ko yàq loolu yëpp itam dinañ ko leeral ci loi bi waaye moom Bassirou Diomaye bëgg na Euh, laata euh, ñuy yegg ci 17 euh, nu mu tudd laata ñuy yegg ci date bi nga xam ne moom la joxe muy le mais mai jëwriñ bi nga xam ne moo yor wàllu justice du maître Ousmane Diagne mu ndar képp projet de loi boobee nga xam ne moom mooy aar ak ak yelleefu lanceur d'alerte yooyu ba kenn ku nekk. Mhm. li nga war a def nga mën koo def te fekk yenn métital yi du la ci fekk. polis nationale mu mel ni ay changement am na ci. ñu ngi koy ruumandaat euh, ca lañu nekk ndax jëwriñ bu bees bi nga xam ne euh, moom mooy Jean Baptiste Tine yore waa euh, ministère de l'intérieur jamono ji nee nañu mu ngi jot naa déglu ñu bari Euh, mu ngi waaja nag euh, soppi lu bëri ci police bi lu mel ni direction générale bu police bi nee nañu euh, mu ngi ci déglu ay nit ngir mën a xool kan la fay dal di tabb jamono ji ñu fi ñu nekk ki fa nekk jiite ko mooy Seydou Bokar Yàgg moom nag ab contrôleur général de police la mhm. moom moo fa nekk ba nëgg nii waaye buñ sukkandikoo ci IGFM mi nga xam ne moom moo fësal euh, bi lay xibaar euh, jëwriñ wu njëkk bëri na ñu mu consulter pour mu ñu mën ko wutu ki ci mel ni le contrôleur général police bi di euh, Mame Seydou nduur nee nañu moom la ñu njort ne dinañ ko fa teg ngir mu wuutu ka fa nekkoon moom contrôleur boobu euh, nga xam ne moom mooy Amadou Amady làmm moom jàpp nañu ne euh, somayul dinañ ko teg ci boppu DGPN maanaam ñu toftal ko ci ki nga xam ne moom mooy jiite DGPN loole nag la IGFM daal di xamle moom am Amadou Amady Lam nag jàpp leen ne euh, nekk na policier bu étudiant yi miin lool. Mhm. ndax nag euh, ci yenn ci ay opération yu bëri foofu ca université yi euh, moom kanamam xar kanamam bokk dañ ko fa ràññee bu baax a baax ginnaaw ba mu jiite woon li nga xam ne moom mooy groupement mobile mhm. d'intervention. dañ koy jeexalee ak Union européenne ñoom nag daal di ne ñuy fas yéene imposer ay sanctions yu yees à effectivement Union européenne nag euh, ni ki démb la dal di euh, ciblé ki nga xam ne mooy Iran ngir teg ci moom ay daan daan yi nag mi ngi ñeel euh, drone ak missile yi nga xam ne. Euh, moom la doon euh, attaqué euh, li nga xam ne moom mooy Israël nee nañu nag daan bu ni mel dañu ko bëgg def rek ngir won ñi nga xam ñoom ñooy waa Iran seen ñàkk ànd ci fitna bi nga xam ne mi ngi fay bëgg juddu ka xamle di ki jiite conseil union européenne bi di Charles Michel lu bëri nag ci ay diplomate Euh, nee nañu nag euh, sécurité euh, conseil Nations Unies bi dina prononcé wu naanaka dina ci àddu ni ki tey jii ngir demander li nga xam ne moom mooy Palestine ngir mu mën a nekk membre per entière à part entière ci li nga xam ne moom mooy mbootaayu xeet yi muy initiative boo xam ne soo moyul du mën a antu ndax euh, États-Unis moom euh, ñëpp xam nañu ne euh, du àndul ci loolu te moom dafa am droit de veto si li nga xam ne moom mooy Nations Unies ay Ly moom moo fi nekk daanaka lu gënoon a ci xibaar yi. jërëjëf Kajoor ñu ngi lay jaajëfal xibaar yi am na solo changement yi nga xamante ni nag ñu ngi koy déggoo au niveau de la police yaakaar naa ni nekkul lu ñuy lu ñuy bett vu que gouvernement bu yees la donc am na yenn mbir yu nga xamante ni c'est normal. pour que ñu ci def ay waaw donc changement yi yeneen changement yi ci aspect politique sax grave mais ci ci ci police. comme ci gendarmerie comme ci armée. Mhm. nañu fexe ba bu mu nekk. Euh, ay fayonto c'est-à-dire des gens yoo xam ne peut-être dañ leen léser ñu indi leen pour ñu parce que c'est des c'est des trucs très sensibles. Mm mais il fallait mu am tam changement parce que nit ñi nekkee woon tam. il fallait ñu ñu su amuloon changement aussi en tout cas ñoom ñu defaraat seen toogaay parce que y a eu beaucoup de bavures policières il beaucoup de laisser-aller parce que ay manifestation que la police se permette di di opérer au même ti euh, euh, dans une dans un même terrain ak euh, ay nervi ñu seetaan loolu Euh, yenn affaire yu bëri di am avec mhm. autant de légèreté il fallait que mu am benn nettoyage au sein de la police et de la gendarmerie parce que mhm. c'est des gens qui sont formés et, très bien formés on a de très bons formateurs que ce soit dans la police comme dans la gendarmerie maintenant dinañ la former formation bu baax ba pare maintenant dans l'exécution de de de la mission sur le terrain aussi euh, ça dépend aussi si ki nga xam ne moom mooy commandé opération bi aussi bu nekkee ku am sang-froid la ku ku xam nu muy nu muy doxalee la aussi ça peut éviter beaucoup de choses donc il beaucoup de choses à faire yoo xam ne ñu mënuñu wax lu bari. xam nañu lu bari nag mais mënuñu wax lu bari mais c'est bien que ñu ñu ñu def le nettoyage bu foofu noonu et puis que ce soit humanisé. en tout cas les nou les nouvelles dirigeants la mhm. les les nouvelles euh, les nouveaux dirigeants les nouvelles autorités. Mhm. muy police muy gendarmerie nañu xam ne aussi ils ce ce défi-là de réconcilier le peuple avec avec la poli les forces de défense et de, de sécurité te loolu je pense que il va falloir que ñi ñi nommé nii aussi ñu xool bu baax ban taxawaay lañ ci parce que ça ne peut pas continuer ouais. que population bi di di am rapport bu heurté boobu noonu avec mm -hmm. avec les forces de défense avec et de sécurité Pape la question tu mais j'ai entendu bon gendarmerie police. il y a nga xamante ni voilà. des changements qui sont sur le point d'être opérés au niveau. de la niveau police au niveau ah yeah, d'accord bu démb. Euh, c'était c'était hier bon waaw loolu mu nekkoon une lobs je pense mm. euh, bon euh, que ñi nga xamante ni ñoo nekk si tête à la tête des institutions que ñu exemplaires. et puis euh, je pense que d'habitude gars yi su fekkee dara dafa am dañuy wax bavure dafa am wala gendarmerie mais mais bon est-ce que est-ce que nekkul genre maintien de parce que quand il y a des troubles aussi tamit il faut maintenir l'ordre mm mais kenn santul kenn maintenir l'ordre si ça veut pas dire tuer des gens quoi voilà man loolu laay déplorer le fait que y ait des morts ay manifestations et puis su fekkee dañuy def diagnostic ñu wane ni mm-hmm. euh, arme lañ ko lañ ko rayé loolu Euh, maintenant bon euh, maintien de l'ordre nag maintien de l'ordre la xam naa moom ay manifestation yoo xamante ni euh, c'est répréhensible du fi du fi mës jug voilà que mu nekk nguur gi que mu nekk yeneen nguur yi di ñëw sa sera comme ça mais il faut que aussi tamit ñooy nga xam ne ñoo parce que ñoo dañuy tënku ci ay loi et puis dañuy dañuy prêter serment wax ne dañuy servir loyalement ak honneur à la République donc il faut que ñu ñu ñu tonk ci tonk ci ci loolu. alors président Euh, adduwaat ci li nga xamante ni moo di euh, projet de loi pour vraiment protéger les lanceurs d'alerte mu mel ni waxoon nañ ko fi euh, et que gis nañ ni que nekk na lu nga xamante ni ça lui tient à cœur quoi. effectivement parce que peut-être xam naa li ñu li li muy dund li muy dund ay moromam dund il ñu fàttali ne que poste moo ko yóbboon au niveau du palais même bu fekkee mhm. peut-être lim mhm. contenu post bi mën nañ ko mën nañ ci débat il ne s'est pas érigé en en en lanceur d'alerte certes mais euh, xeetu wax euh, kii la maintenant nag la le défi ce sera maintenant ñu ñu defar vraiment loi boobu noonu parce que sénégalais aussi am na benn jukko boo xam ne. Mm. Euh, dafa ko am mooy yàq der yàq der te dala du la ci fekk xëy bëgg yàq der nit wala xëy bëgg yàq nit nga dem jël ay nit ñu waxal la. Mm-hmm. waxal nit ki loo xam ne du dëgg yoon. yaa ngi dégg waxal ko ay bal yoo xam ne tegul fenn aussi après on va nous donc loolu noonu yëpp bu ñu ko buggee boole ci lanceur d'alerte ça va être compliqué donc ce serait bien que loi boobu ñu ko wax mu élaborer avant quinze mais mu def ko de telle sorte que les choses seront bien définies ñu xam kan mhm. mooy euh, lanceur d'alerte ak lan mooy lanceur d'alerte ak lan mooy seen limite mhm. su ko defee euh, genre Moussa Sow yi di di di di jug naan ay man su dara amee dinaa wax président ñu may protéger ma parce que dinaa wax bu fekkee yow ba nga nekkee foofu war a wax waxoo nga ñëw ba toog tey affaire yu jaam di wax après nga nga bëgg a teg sa bopp. Moussa Sow ngay xoolal Omar Sow Omar Sow je sais même plus ah, comment il <laughs> boobu voilà yaa xaw ma sax kuy Moussa Sow man dama jàpp ni Moussa la tudd xam naa daal ni Sow la sant xam naa daal ni Sow la sant donc c'est juste un exemple que je donne <laughs> di yow nga yeew rek mer nga rek di di wax di teg dara si nit aussi euh, loolu maintenant nag c'est bien ñu ñu encadrer ko parce que. vrai lanceur d'alerte euh, accueillir nañ ko fii ñoom ñi nga xam ne dañuy yëngu ci la femme la donc elle a bien défini lan mooy lanceur d'alerte ak lan la war a nekk ci mhm. ci réew mhm. maintenant nag buñ ko encadrer ce serait que mhm. euh, du bien pour tout le monde seen liggéey day gën a yomb voilà dootuñu ragal wala ñu leen di xoxatal wala sax ñuy def ay mbir yu nga xamante ni c'est risqué Pape loo ci sànni si ay kàddu la ñu jàll ci euh, leneen euh, bon man je suis si loi bi si loi wu lanceur yi affaire yi avancé na am na dëkk yu bëri yoo xamante ni am na fa euh, France Canada États-Unis euh, su fekkee dañuy taxaw si États-Unis bokk nañ ci bokk nañ si pays yi nga xamante ne sax presque ay dix-neuvième siècle la fa amoon parce que y avait la guerre et puis peut-être loolu moom moo ko taxoon jug y avait la guerre ñu interdire yenn affaires yi donc am na ñoo xam ne ñu leen wax boo leen gisee diw wala boo leen gisee ñu def dara. Mhm. il faut dénoncer loi bi dina leen protéger euh, mais est-ce que fii c'est est-ce que le fait nga nekk si benn institution di liggéey di dox. di gis ay mbir yoo xamante ni li ñu ko fay defee du yoon nga génn wax ko est-ce que loolu jar na loi je me pose la question est-ce que loolu jar na jar na jar na loi pour man nekkul nécessité pour man naturellement hmm. ça doit être comme ça naturellement sa doit être comme ça bu fekkee dafa am lenn loo xamante ne après jub na si bon tribunaux yaa ngi fi ñu mën nañ leen mën nañ leen a euh, parce que euh, kenn mënul liggéeyandoo ak nit muy def ay surtout affaire corruption lay doon euh, genre yooyu noonu Euh, nga génn wax ko après ñu ñu ñu ñu ñu tëj la sous devoir de sous devoir de réserve wala wala wala wala autre chose euh, euh, beneen bi moom mooy dafa am ay ay danger yoo xamante ni mu ngi si boo Kajoor duggul si biir mais par lu lu soxal lu mel ni affaire ay sécurité parce que États-Unis maa ngi doon wax sànq appliqué nañu loi bi am na fa am na koo xamante ne par exemple il s'appelle Edward Snowden Edward Snowden ça fait presque. près de dix ans mu ngi Russie actuellement ñemewul ñibbi États-Unis xam nga la moo tax lanceur d'alerte la NSA la doon liggéey mooy. Euh, société sécurité foo xam ne affaire sécurité la. waa waa américains yi dañ doon dañ doon dañ doon cibler ay nit di leen topp di leen déglu ay écoute affaire renseignement. mu génn wax ko mu ne américains yi dañuy dégluwaatee dañuy violer liberté jàmbur yi affaire yooyu noonu donc ñu sukkandiku si benn loi affaire espionnage. bu euh, ko boo tukkee boo duggee États-Unis peine de mort lañ lay dóor boobu ba léegi ñu ngi Russie laaxu te ñëpp xam ne relation yi nga xam moo am États-Unis ak Russie am na tamit yeneen exemple yoo xamante ni que soit dans football ak yeneen ñoo xam ne dañu génn wax mais ñi mu ñu dem seen seen dëkk man damay ragal ne parce et puis culture yi bokkul aussi tamit ñun nous sommes nous avons une culture africaine xam nga nit yi ci solidarité la ñuy dox affaire yooyu pas ne ne seulement pas mais ci solidarité la ñuy dox am na yoo xamante ni c'est à préserver affaire rite affaire culture loolu lépp muy ci affaire lanceur d'alerte c'est beaucoup euh, euh, mais mais le fait que bu fekkee da ngay liggéey ci benn institution nga gis ne am na ay yoo xam ne doxul pour man loolu c'est tout à fait naturel. nga wax ko que nga wax ko. ñu xool voilà et puis xamante ne. noonu la ñuy kon kon su ma la déggee bu baax pour yow. loi bi nekkul une nécessité mais mais c'est important loo Kajoor wax loi bi aussi tamit fokk contenu bi c'est important loo xamante ne moom moo nekk ci biir loolu c'est important ba nga xamante ne fan la affaire bi commencé ak fan la yem sinon dafay nekk dérive mën nga sax confondre kan moo nekk journaliste parce que mhm. tout, sinon tout le monde va donner des infos tout le monde va informer yàq der en fait dafa bëri ay yoo xamante ne dafa mhm. jaxasoo et c'est complexe j'espère que dinañ définir exactement la moo nekk euh, Euh, termes yi con euh, euh, concrètement ba nga xamante ni kenn lu ci réer ba nga xamante ne aussi du am ay voilà la am ay du ay du am mélange mais quand même y risque voilà. jóg rek wax say bal ne lanceur d'alerte la Sénégal nag dafa neex dëkk Dior. <laughs> merci beaucoup alors on enchaîne de plus belle gën a yaatal xibaar yi waxtaane nag li nga xamante ni moo di l' actualité politico économique ànd ceeg Pape Malick Thiam léegi léegi rek bu bàkk bi noppee ñu dikkaat daal di dugg ci langue politique yi waxtaane xibaar yi. actualité politique bi Pape Malick dañ koy tàmbalee ak parti bi.